bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil aalamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam subhaanaka laa cilma lana illa maa callamtana innaka anta alcalimu alxakim allahumma callimna maa yanfacunaa wanfacanaa bimaa callamtanaa wa zidnaa cilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alhamdulillahi alladi axyaana bacda ma amaatanaa wa ilayhi nushur Rewmi FM 97.5 delsuwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtaanu fajar bi ci waxtu wi ngeen di si ànd seen mbokku Ibrahima Drame ki ñu àndal ci wàllum xarala gi mooy suñu technicien bu mag bi di Mohamed Bachir Cissé mbokk yi ñu bokk sant yàlla buur bi tabaraka wa taala julli si yenentu bi di ar rasul Mustapha sallallahu alayhi wa waaye duñu dañ di ñaan yàlla mu duñu dottil xéewal ya nekk fa moom ndax moo ñu ne uduuni astajib lakum ñaan leen ma ma may leen kon ñu ngi koy ñaan te ko ne allahumma anta salaam wa minka salaam ilayka yacuudu salaam fa xayinna bisalaam wa adxilna aljannata daarak daaru salaam amin ya rabbal alamin mbakk yi yenn jàmm yi nekk ci yéen ak seeni njaboot xam ngeen ne ba léegi ñu ngi ànd ak suñu mbokk auditeurs yi di rafetlu may nopp ba ngeen ñuy may nopp yal na ko yàlla def xasanaat fi mizaan yawma laa yanfau maalan wala banuunan illa man ata allah bi qalbin salim yal ko bur yàlla def yiw ak tiyaabu si suñu téere jëf bés bi nga xamante ne amul dara luy njariñ nit du doom du alal lenn lay njëriñ nit daal mooy ko dikkee fa yàlla andiwaale xol bu laab kay dikk fa yàlla nag andiwaale xol bu laab nag weesuwul ngay déglu lépp li nga dégg ci la yàlla digle nga def ci sa kemtalaay kattan waaye nga géem a sorel sa bopp ci lépp lu mu tere ci sa kémtalay kàttan kooku muy dikkee bés pénc andiwaale xalbun salim mooy xol bu laab mbokk yi ba tax na Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar bem leen di amal ci waxtu wi tey ñu war a dugg ki yéen ci classe ba nga xamante ne fala yonent bi joxe dars bu toll ni jullit bi nii la war a comporté woo wala doom bi nga xamante ne buur yàlla mu ngi wax ci alquran ci béréb yu fasante ko ci ay aaya yu wuute mu du ñu wax ne wa wassayna al insaana bi waalidayhi waaw buur yàlla ne man yàlla de maa dënk doomu aadama ñaari wéyjur waaw ah, yàlla nee na moo dënk doomu aadama wi ñaari wuyjur ñu di nit ni moom waaw ñaari wuyjur yooyu ñu doon doomu aadama ni moom léeg-léeg nga ñëw àndaale melokaanu góor gi nga nuroog pàpp ji léeg-léeg nga gane ci àddina andiwaale melokaanu yaay nga daal di nuroog soxna kon buur yàlla loolu mu composé noonu mooy lu xel mën a nangu waaye loolu mooy coobareem te loolu moy lu mën a nekk tamit sas contraire bi moom bu amee rek loolu catastrophe la waaw yàlla def la nga doon doomu aadama say ñaari waajur yi nekk leneen lu wuuteeg la nga nekkee loolu kenn mënu koo cautionné yàlla def nga nekk leneen sa ñaari waajur yi nekk doomu aadama joo nga nekk leneen loolu kenn mënu ko cautionné kon nga doon doomu aadama ñëw gane ci àddina fekk ñaari wuyjur yàlla siq meññ la ñoomit di doomu aadama ni yow moo tax yàlla ne wa wassaynal insaana ñoo dënk doomu aadama bi waalidayhi ñaari wuyjuram yi waaye bur yàlla daldi xamal doomu aadama bi ne xamalatuhu ummuhu waxnan ala waxnin nee na ma wóolu ci ndenkaane boobu yaay gi ba tax na moom la confier ndenkaane bi mu yenul ma ko mu ëmbal ma ko ci coono gannaaw coono coono ci kaw coono la ku jigéen ki di ëmb la ko yàlla dénk bur yàlla nañu ñu wa fisaaluhu fi amayn nampal beg feral bi yépp boo ko doon xayma di nga gis dina tolloog ñaari at yu mat sëg ngir anushkur li wali walidayk ngir yow doomu aadama bi boo xamee lii nang ma sant man yàlla ci ndénkaane ba ma la dënk ñaari wuy jur ñu di nit ni yow nga ràññee yaay ji ba nga ràññee pàpp ji nga xam ne ñaar ñi daal ñooy ñala meñ nga ñoo fekk leen ñu doon ñaar nga gane ci kër gi nga doon kalal ñetteel te nga xam ne tamit ba léegi war ngaa war a mën a delloo njukkal sa ñaari waajur yi waaye na leer ne daal bu dund wi jeexee yow ak say ñaari wayjur yooyu ak lépp li ngeen mun a am après doom yi ngay am yowit ak sit sitaat ya ngay am yéen ñëpp mbooleem seen ak lépp luy dukkat ci kaw suuf si ilayyal masir ci man yàlla ngeen di dellu ndegem dénkaane boobu noonu moo tax ndeysaan suñu lenn suñu jigéen ñi nga xamante ne ñoom dañoo réere mbir la yonent bi jàngale te mu doon ki jëlee jigéen ci nooteel andi ci moomeel jëlee ko ci doyadi andi ko ci valeur amul kenn ci occidentaux yi def lii kudul sallallahu alayhi kon yow sama jigéen mene yi yaay danga porter drapo féministe xamal la nga yenu lu mu doon boo koy manifeste tamit di ko wone walla di ko teg ci penc bi ndegem jullit nga demal gestu ana wan àq la diine islaam jox jigéen jëmma joo xamante ne dañ ko daan suul jëmma joo xamante ne bu gisee gan ba koy weer bu ne dañ ko daan beddi ci pénc bi soreel ko isolé ko ignoré ko diini islaam moo ñëw ak professeur bi ko andiwaale di ar rasul mustapha sallallahu mu ne déet mbindaafoon bi kat kenn du doxal ak moom ni kon yow mi porté flambeau drapeau féministe dafa war nga gëstu ana lan ana wan cër ana wan yoon la diine islaam xàllil ne fii la jigéen war a jaar waaye ngeen di porte loo xamante ne benn bët dong ngeen koy xoole àndak loolu ngeen ne yi yaay ay jullit ngeen nekkin bi war nañ ko war a mën a xoolaat alquran ba yàlla wàccee yonent bi gis nga yàlla dafa jël doomu aadama bi dénk ko ñaari way dencant waaye yàlla ne soxna si laa si gën a wóolu ngir mu tiil ma la ma ko dénk ci ndénkaane boobu moo tax ci xadisu abi hurayra radiallahu anhu waa ji dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko jaa rajulu ila rasulu sallallahu alayhi wasallam fa qaal yaa rasulullah man axaqu nnaas bi xusni saxaabati qaala ummuk qaala summa man qaala summa ummuk qaala summa man qaala summa ummuk qaala summa man qaala summa abuk muttafaqun alayh mbokk yi ñen na jàmm yàlla nekk ci yenn ak seeni njaboot yow féministe bi nga xamante ne danga ne yi yaay da nga opte géema yëkkati ak jigéen xanaa xadis bi danga jàngul walla déggoo ko wala bëggoo koo dégg wala buggoo koo jàng abi hurayra radiallahu anhu sahaabi la ci sahaaba yonent yi yal na ko bur yàlla gërëm nee na dafa am góor gu ñëwoon ci yonent bi sallallahu alayhi mu ne ko yow mi yàlla yónni ana kan moo gën a yey ci nit ñi ma rafetal jëmale ko ci moom mbokk yonent bi dàq ñépp joxoñal waa jooju mu ne ko sa wayjur bu jigéen mooy première personne mooy nit numéro un koo xamante ne ci moom nga war a rafetal jëmale ko ci moom dàq na baay dàq na maam dàq na sëriñ dàq na lépp yarkat moo xam képp koo xamante ne war na laa amal njëriñ yow doom bi yonent bi jël na lépp teg à côté mu sampa sa kanam mbindum bi naa foon bi nga xamante ne ba dara nekkul dara yàq mooma depuis njëlbeen ba nag depuis jamonoy ndox depuis jamonoy lumbu deret depuis jamonoy suux depuis jamonoy composition cër yeeg yax yeeg ñoom seen dippi jamonoy génn summa sabila yassarahu la yàlla wax gannaaw si ma yombal ko mu war a génn génnukaay boo xamante ne kawte fu yàlla moo fa doon sis kon la islaam jox jigéen cër amul weneen diine amul weneen penseer amul beneen doxalin ba nar jox jigéen gidd ba nga yem ak islaam wala nga jiitu ko amul te dootut am moo ne waaji bu mu ñëwee laaj bi mu ne ko man ahaqu naas ana kan moo gën a yey ci nit ñi bi xusni sahaabati ma rafetal jëmale ko ci kookee ana kan moo gën ci nit ñi ma rafetal jëmale ko ci moom yonent bi joxoñal ko mu ne ko qaala ummuk yonent bi ne ko sa yaay qaala summa man waa ji ne ko gannaaw sama yaay kan moo ci war a tegu qaala summa ummuka yonent bi ko dama ne sa yaay waa ji laaj yonent qaala summa man après sama yaay ana kan moo ci war a tegu qaala summa ummuk yonent bi ne ko dama sa yaay qaala summa man gannaaw si waa ko yow mi yàlla yónni gannaaw sama yaay ana kan moo ci war a tegu ca la ko yonent bi ne qaala summa abuk yonent bi ne ko gannaaw si sa kon yonent bi joxoñal na waa ji doon laaj ana ci nit ñi mooy ci ki mu war a rafetal jëmale ko ci moom yonent bi joxoñal na ko yaayam ba mu doon ñetti yoon ba ko ñeenteel nag la ko yonent bi ne ko sa kon lii dafa bokk ci lañu bëgg a waxtaan ak mbokk féministe yi wala képp koo xamante ne jël nga flambeau drapeau féministe ne yi yaay moom ngay ofte jëlaalil bii nga yóbbaale ko su ko defee nga garde ko kooku diggante doom la ak yaay ba yonent doon xeexal jigéen ñi ba yonent doon samp jigéen ñi ci place bu ko benn diine tegul fekk yow la nga nekkee existé yow ci sa jëmmi bopp sax existé wuloo kon jëlin bi ngeen xàmmee ko bu dee mun ngeen ko gànnaayoo na ngeen ko gànnaayoo par rapport ak la ngeen di doxal doxalinu àddina day ànd ak islaam waaye yenn say islaam da koy jiitu ay siècle muy dox ba dab ko mu jiituwaat ko ay siècle mu dox dab ko ba léegi ci xadis ba yonent bi sallallahu alayhi jàngale nee na qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa man kaan lahu thalaathu banatin aw salaasu axawaatin aw banaat aw axwatayn fa axsin suxbatuhunna wattaqillaha fihinna falahul janna saxiixul albani mbokk yi yann jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot ba léegi ñuy jox mbokk féministe yi la yonent bi portel jigéen ñi yàlla te ñu déggee ko comme nuñ koy waxtaanee nii ndax mu doon la la amal njëriñ moo gën ñuy opté doxalinu occidentaux yoo xamante ne du lay yóbbu fenn du lay yóbbu ci lenn lu dut dañuy gën a suufe rek yenn leen yàlla gindi won leen yoon bi yonent bi salaa nee na mbokk yi ci maanaa xadis bi man kaana lahu thalathatu banaatin képp ku yàlla wërsëgal nga am ñetti doom yu jigéen aw salaasa ixwaatin aw ixwatayn ax aw yàlla baaxee la nga am ñaari doom yu jigéen moo xam seex lañu wala ñaari doom yu jigéen moo xam mag ak rakk lañu yonent joxoñ yow parent bi fax seen ngir rafetal soxbatuhunna seen nekkin wattaqillaha fi hinna nga ragal yàlla ci ñoom jëloo ngineel teg ko ci kaw kii suufil kii parce que kii moo lay jox kii nga war a favor kii joxu parce que moom nga war a doya dal meloo noonee ki la kilo ak joxul moom nga boo ko yemale ki jox moom yemale nga ko ak kilo du jox kilo du jox doo ko xeeb doo ko xeelu ki lay jox doo ko jox gëdd doo ko ne yaa fi nekk doo ko ne yaa ma génnal ki ma xam amuloo ginalante bi nga génnelante ci sa diggante ñaari doomi nga sóoraale yàlla ci sa diggante ñaari doomi nga bàyyi xel yàlla ci sa diggante ñaari doomi hmm? yonent bi ne fadaxul janna waaw kooku de méditoo na dugg kër bi ñu naan arjan bi léegi ci xadiisu suñu yaay di ummul muminin aishata radiallahu anha anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal laysa axadun min ummati yacuulu talaasa banaatin aw talaasa axawaatin fa yuxsinu ilayhinna illaa kunna lahu sitran min annaar xadiisun saxiix axrajahu albaani fi saxiixu jaamic mbokk yi yenn jaami yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot suñu yaay Aïcha radiyallahu anha moo ñu ne naka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee nañu laysa ahadun min ummati amul kenn ci samay xeet koo xamante ne yaulu thalaasa banaatin aw thalaasa axawaatin yàlla dénk ko ñetti doom yu góor wala ñetti doom yu jigéen wala ñu doon ay frère walla moo xam ay seex lañ fa yuxsinu ilayhinna mu daldi rafetal seen jikko mu jëmbët si ñoom jikko ju baax mu jëmbët si ñoom lépp loo xamante ne mooy la yàlla digle te yonent bi jàngal ko waaye mu tere leen lépp lu yàlla tere te yonent bi jàngale ko nee na képp ku yar sa njaboot yarin bi ni nga teg leen ci ndigle yi nga sori leen ci tere yi yonent bi ne illaa kunna lahu sitran min an naar bés de ñooñu xale yooyu nga teg ci raay bi ba ñu jub nga tere leen seen banneexu bakken ba seytaane kofu leen yonent bi nee na xale yooyu kat keroog bés pénc doon barrière bay jaar sa digganteeg safara mbokku féministe bi na xam loolu tamit kon diini islaam bu mu doon xeexal jigéen féministe existe wul xamul sax ne dina musa existe kon dañ leen di laayee biir rek ñu xam ne diini islaam daal moo fi nekk di doon diini boo xamante ne fu ko gaay jaar ñu fekk mu doon lu taxaw tem te gars yi mënuñu ko jaaree fenn lu dul dinañ ko fekk mu taxaw ne soccet mu di leen xaar te bu ñëwee ah noonu fuñ ko song moom ñoom ñooy sonn walla ñoom ñooy taay ñu bàyyi ko ndax yàlla loolu la wax yuriduna li yutfiu la dañoo namm fay leeru yàlla tey bëgg nañoo ànd ak yéen ci classe bi ndegem waxtu waxtu wi may nañ ñu ko su ko defee ñu àndandoor ak yéen xool ana woon bind la yonent bi jàngale sallallahu alayhi wa ne yow jullit bi noonu nga war a comporté woo waaye noonu nga war a mel tey suñu beneen bind boo xamante ne fas yéene nañ ko waxtaan ak yéen moo ne yaakulu mimma yalika aw yaakulu mimma yalihi del jëfandikoo ñam ba nekk ci sa yow jullit bi rawatina yow xale bi ci xadiisu yaa gulaam ci xadis ba nga xamante ne mooy yaa gulaam yenentu bi sallallahu alayhi wa moo jàngale ne yaa gulaam samillaha wa qul biyaminik wa kul mimma yalik rawaahu buxaari mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot ka yàlla yónni di ar rasulul mustapha alayhi afdalu wa azka taslima moom mi yàlla yónni ngir li yuxrija annaasa min adulumaati ila nuur ngir mu jële doomu aadama yi ci lëndemaayu riir yóbbu leen ci leeraayu xam-xam waaye jëlee nit ñi ci lëndemaayu bokkaale yàlla yóbbu leen ci leeraayu wéetal yàlla moo ñuy jagal suñu pinc bég suñu néeg yéeg ak nañuy yare suñu tu tànk yi sallallahu alayhi sallam nañu ci xadiisu yaa gulaam xadis ba nga xamante ne tuur tànk bi la yenent bi di waxal ni sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko yaa gulaam yow ndaw yaa gulaam yow gone gi yaa gulaam yow ndaw bi yaa gulaam yow xale bi boo demee bay lekk sàmmillaaha na nga tudd nga wax bismillah booy lekk wakul bi yaminik na nga jëfandikoo sa ndeyjoor moo ne mu teg ko ci ne ko wakul mimma yalika na nga jëfandikoo ñam ba fétti sa kanam mbokk yi taaliqaat commentaire bu ndaw buñ fi war a mën a def bokk na ci ndaka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léeg-léeg day wax tu tuut tànk bi nga xamante ne xamul xàmmeewul na yonent bi di wax ak moom mooy da ko ne yow xale bi nga xamante ne yaa wara ganni gani si si pencum jullit ñi xamoo xàmmewoo man mi yàlla yónni ma leeralal sa ñaari wuyjur yi la yàlla santaane ak la yàlla tere te nga bokk kenn nga di kenn ci pincum jullit ñi maa la bàyyil bind bi nga xamante ne boo ràññee nanga ko xamee ni yaa gulaam yow xale bi yow ndaw bi booy dem bay jëfandikoo lekk yonent bi ne nanga wax bismillah na wax maa ngi tàmbale sama ñam bi ci turu yàlla mooy bismillah maa ngi tàmbale maa ngi commencé lekk bi ci turu yàlla bismillah waaye yonent bi xale bi nee na wax na bismillah ak lan yonent bi ne na wa kul bi yaminika na nga lekkee sa loxo ndeyjoor waaye yonent bi xale bi wax na bismillah lekkee na loxo ndeyjooram ak lan yonent bi ne wa kul mimma yalika na nga lekk la nekk sa kanam bu dee bool nga tiim la féeteg fa nga toog yonent bi nee na booy lekk na sa loxo bi yem foofu kepp rekk dong ke la féetee droite bul jil la nekk ci wetam koo jàkkaar lool laal la nekk foofee ki nekk sa càmmoñ bul jil la nekk ci koteem diggi ndab li moom bu fa sax xool ba di fa jël ndawal walla nga di fa jël lañ fa teg yaa gulaam yow xale bi samillaha tuddal yàlla nel bismillah booy lekk wa kul bi yaminika na nga lekkee sa loxo ndeyjoor sa loxo droite wa kul mimma yalika booy dem bay lekk nanga lekk li nga tiim wala nekk la nekk ci sa wet la nekk ci sa kanam nga bañ a jël sa loxo di ko dawale ci bool bi fu ne nga di capar-capar say loxo foofu yonent bi dalaa tere loolu sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi lii leen na ci lañ leen andil ci kalaas ba nga xamante ne sallallahu alayhi wa moo ñu fay jàngal nañu war a lekkee jamono bu ñu sukkee ci ndab li nar jëfandikoo waaye duñu ñàkk ñàkkul mu am ay nit yi ko jël moomale ko seen bopp bu ñu koy waxtaanee duñu tudd yonent bi bu ñu koy wax duñu tudd yonent bi ñu defe ne loolu aada naam lenn ci jullit ñi ñu ngi koy jëfandikoo waaye njàngale yonent bi la sallallahu alayhi wa mbokk yi yal nañu la may dégg ak topp waxtaan bi jeexul dañoo yëg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi war a jébbal bërëb bi ñuy joxe xibaar ci nasaraan ñu ñaan yàlla suñu boroom jalla wa ala an yaj'alana min allazina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana allahumma ya rabbi aati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir allahumma ya rabbi aminna fi awtanina waslih a'immatana wa wulata umurina